قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون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 قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون فأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أفضل خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم أن نلقاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا wanfana bima allamtana mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di ñëwaat ak yéen ci suñu jotaayu diine di tukkik nemmiku ànd ak alquran rixlatu ma alquran di koy feggook yéen di seen mbokk Mouhamed Saleh Diouf ñaan sunu boroom fi mu bàyyee ko yàlla leer fa mu jëm it yàlla na fay leer doon fa leer ak ngindandiku bi xurmati xabibina wa shafiina muhammadin mu mel ni suñu jotaay bi wees ñu ngi nekkoon ba tey ci diggante doomu aadama bi ak shaytaan mu war a nekk suñu jotaay bi mujj ci tënk mu mel ni waxoon nañu ne ci tënk doomu aadama bu xamul dikkam ci kaw suuf mu ngi ci danger ndax li xew mooy yàlla bëggut a dëkk ku remplirul condition yi mu bëgg nga dëkk ko moom te yeneen yàlla aadam ci waxin dafa mel ni dafa dëkkoon ak yàlla waaye bi yàlla xoolee gis na am na lu mu desee ca la ko génne aljanna évacué ko indi ko ci kaw suuf li waral loolu nag mooy dafa mel ni accident moo am ndax ni yàlla waxee ci alquran niñ koy déggee mooy dafa mel ni accidentellement la amee aadama du ci dara moo taxit yàlla jéggal na ko ndax wax dëgg yàlla ku ñu ne kër gii lépp a ngi fi waaye nag néeg bale moom bu fa dugg te néeg yépp a ngi yàmbalang war ngaa mën a ñàkk dugg ci néeg ba waaye seytaane ci pexem fexe na ba dugaloo aadama ci néeg ba te dugg ci néeg boobu mooy yow mën loo dëkk ak yàlla ndax dañ laa tere te bàyyiwuloo mën nañ la leeral sànq ci voyage euh, ci ci euh, jataay bi mujj ne ki yàlla digal mu bañ moo gën danger ki yalla téré mu def ndax wajur bi nek ci kër yar doomam son ci mom lool bu xëyee ne ko kay defal mo dara mu ne ma bañ fa mu koy toll dafay wuuteeg lool diw ma ngi génn waaye nak moytul ma lële mu xëy fekk kooku laal na loolu dañoo wuté seytaane bu danger bi la def moy defal mu ne ma bañ moo taxit yàlla rëq ndiggam adam biñ ko bàyyil mu def dafa ëlbatiku tuub yàlla jéggal ko ki ko def loo woon nag mooy seytaane ci pexem jaaree ko ci kan suñu yaay xawwa ndax na mu demee mooy dafa mel ni aadama benn chauffeur la bu yëg ci biis njabootam yépp nekk ci biir mu nekk ci autoroute à wala mu nekk ci tali aljana yi di dawee nu ko neex di dem fu ko neex région bu ko neex mu fay tambambaalu yàlla ne na ko amul problème waaye nag yoon wii jëm méridien moom bul ko yéeg mukk ndax sa musiba ma nga fa aadama it saa su xëyee rek di bànneexu ci biir aljanna waaye xàmmee na yoon woowu ba benn bés mu mel ni seytaane dafa soppaliku nekkal aadama benn Tak der om de tenue nekk yi nekk ci tali bi mel ni daf ko feeñu xamal ko ne ko nag yoon wi nga daan jaar nii tey bu fi jaar dafa am benn travaux bu nekk ci kanam faaw nga dévier adama xool fi mu ko bëgg dévier mu xam ne fii yoon wi dañ ma ko tere mu ne ko faaw nga dévier ci waxin comme xawaa mu ngi ci kanam moo adam Hawa ne ko déet waay yow yoon wi la suñu borom wax du yoon wi da ngaa juum yoon yu mu la wax du yoon wi danga juub iblis benn aaya ci suuratu taaha hal adullaka ala shajaratil xuldi wa mulkin la yabla ndax duma la tegtal yoon woo xamante ne boo ca jaaree yow yow aadama da mucc be faw te sa nguur dootul jeexati dootul ràppati mu ne ko mooy yoon wii xawaa ne ko mooy yoon wii nag naxuñu de yoon wii la kon nañu teggi aadama ne bismillah ñu teggi ndeke iblis gas na fa pax moo xamante ne oto bu ca dugg bu la yàlla xettaliwul dootoo génnati dafa dévier rek na sarax ci biir pax ma njabootam ñay blessé wu blessé ñii seen bopp yi toj seen loxo yi damm seen tànk yi damm ñii ame ay gaañ-gaañ yonente yëpp ca lañ bokk waaye aadama ba mu ne sarax rek ca la yëg ne daanu na ci piège mu ne laa ilaha illa anta subhanak rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna min alxaasirin yow yàlla tooñ nañ suñu bopp de te boo ñu jéggalut yërëm ñu danañu bokk ci ñi perte comme seytaane yàlla ne ko dinaa la jéggal waaye du landi jéggal bi moom mooy dootoo dëkkateeg man fii dama ne évacuer yow ak sa njaboot ñi ci blessé yépp mu yóbbu leen ci hôpital bu ñuy wax àdduna yàlla jël yonente ya faj leen ne leen nag bu ngeen demee yéenay faj ñi des yonente yi yàlla leen fajal boppam ne nag bu ngeen yeggee na ngeen nekk médecin yi ku ci nekk dinaa ko jox médicament yi nga xamante ne moom lay fajee askanam suñu yonente bi lan lañ ko jox alquranul karim yonente yàlla musa ñu jox ko lan tawraat daawud ñu jox ko zabur isa ñu jox ko injil yeneen yoon te ñu jox leen seen téere <coughs> ñu ngi jéggalu bi ñu évacué indi ñu ci àdduna muy hôpital yàlla dafa xamal yonente yi médecin yi ne leen médicament yi ma leen di jox na ngeen ko jël jox ko seeni xeet ku ci nangoo faju ba dana dellu siwaat mooy aljana bi ñu yàlla dig waaye nag ku ci nangoowul faju kooku bàyyi leen ko ala kulli xaalin gaañ-gaañ gi nekk ci yaramam fa mu koy yóbbu mooy safara loolu moo waral yonent yi ñëw indaale seeni lan garab di faj nit ñi ñi amee feebaru xol ci rëy añaan soxor yépp ñu faj leen seytaane it yi nga xamante ne sërmbal na ko ci nit ñi ci ñàkk kersa ci xawi wantey sutura comme li xew tey ci jamono ci internet bi nit ku xaw wi suturay boppam nit ka ñëw fekk ko fa jël ko xawil ko ko tamit ndax yaa xaw yi sutura bopp am ku jot vidéo ba daal di ko partagé sa sutura xawee ko ci àdduna bi yëpp kooku bakkan la ak seytaane doomu aadama bu toppee bakkanam na ku wóor ne bakkanam boobu seytaane la lëkkalool bakkan du mës lëkkalook lëkkaloog nit lu dul nit ki daf ko teg ay daan yu diis yoo xamante munu caa mucc mu ñàkk pexe ànd ak nit waaye bu dul loolu boo ko bàyyeeg boppam rek moom bakkan dafay lëkkaloog cheytaan moo waral yi ngeen fi gis tey yonente yi nag ak nitu yàlla yi ñëw seen gannaaw dañoo ñëwoon ngir indi saafara ci loolu mooy médicament yooyu yonente yi bàyyi fi ñu ciy faj nit ñi comme docteur yi ni ñuy fajee ñi tawat loolu mu ñu indi ci àdduna bi ku ko xam mucc nga ku xamadi nag ah daanaka sa dund mën na neex ci àdduna de waaye ëllëg boo dajeg suñu boroom xam ne ndekete fajoo bu woon te yàlla ku fajuwul fii ba dellu ci moom moom dootoo fajooti fa mu lay fajee moom xam na ko mooy safara te yàlla nañu ci yàlla musal kon seytaane loolu mooy rëlam ci nit guddeeg bëccëg mooy sànk ko moom nag partenaire bi mu am ci jëmmi doomu aadama mooy bakkanam kon doomu aadama yi faw na yar bakkanam xam ne ndekete noonam la bi gën a rëy nekk ci biiram noonam bi gën a rëy nekk ci bitam mooy seytaan yeneen ñaari noon yi mu yéeféer bi ak naafiq bi kooku nag yàlla nee na ko yow laa ko bàyyel loolu moo tax weeru koor yàlla nee na dinaa leen jatangal seytaan waaye yéene jatangal seen bopp seeni bakkan ci xañ ko lekk xañ ko naan xañ ko sëy bakkan ñeent yi da gën a bëgg boo ko ko xañee yaa ngi koy commencé lottal muy lekk ba da ko bëgg kon xañ ko ko bu mu lekk ba nelaw ba yandoor daf ko bëgg bu mu nelaw ba dafa bëgg yaataa yumbe bu ko kenn téye nay dem waaye nga jëkk jatan ko léegoo lekk ne ko nag kaay toog bul dem ci mbooloo bi bakkan dafa bëgg sar-sar wax lu ne mu wax ca waaye nga téye sa làmmeñ moo tax ñu naan mag ñi doon nañ wooral seeni làmmeñ comme ñu daan woorale seeni biir xëy duñu wax ba guddi lu dul jàng alquran ndax làmmiñ dañ koy wooral loolu yépp ngir bëgg jatan bakkan bi nga xamante ne boo ko jatangul bis bu tinkee ko rek ci seytaane la jëm te bu lëkkaloog seytaane yow am nga jafe-jafe yow nit ki te loolu mooy li dal tey Le ëpp ci nit ñi li ëpp ci réew yi bi atteetuñu sax li yàlla santaane waaye li ñuy attee yépp mu ngi aju ci bakkan ndax seeni bakkan lañ jël jébbal ko shaytaan shaytaane boobu nag moom yowmal qiyam ndeysaan fi ñu koy tëjee mooy bu lépp yembee ba yàlla war a atte nit ñi dañuy àkk ji shaytaan seen shaytaan yi dañ leen di gis nag jahran ndax fii moom doo gis waye fele mom da ngay gis وقال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في الضلال المبين او في ضلال البعيد فوفو وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ma ana bi musrixikum wa ma antum bi musrixi inni kafartu bi ma ashaktumuni min qabl seytaane foofu lay waxee ne nag bi yàlla àttee lépp ba doomu aadama yi ñëw poñe ko ne ko lépp yaa ñu ko yóbbee mu ne leen déet waay yàlla daf leen digoon ma dig leen ngeen wàcc li leen yàlla digg ni yàq bu forox topp li ma leen dig te man sax awma benn saytar benn kàttan ci yéen am na porox ndoo leen bu ngeen ko fattoon man du ma yegg si ci yéen man yàlla ñi mu wax ne am naa kàttan ci ñoom mooy alladina yatawallawnahu walladina hum bihi mushrikun ñooñu la yàlla wax ne man moom am na kàttan ci ñoom mooy ñi jox yàlla gannaaw ne yàlla matuloo ñu kilifa man seytaane may nekk sa kilifa ak bokkaalekatu yàlla yi yàlla moom nee na moom am naa ci ñoom accès mais ñaar yi bu ko fattoon rek ngeen ngeen mucc ci man te yàlla waxoon na ni ku mu nekk ci yow mucc ngi ci seytaane laysa lahu sultaanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun seytaane moom amul benn accès benn saytar ci nit bu fekkee dafa gëm yàlla te mu wér ak ki wéeru ci yàlla li tax mu ne a tawakkul ki wéeru ci yàlla mooy am na nattu yi bàyyi ci yàlla di yes ci nit ki bu fekkee nit ki amul iman bu dëgër ak tawakkul bu dëgër ñaara ko mën a mu saalit weddi yàlla wala ñu mu jixi jaxal xelam ba mu jàpp natt bii de nangam moo ko waral est-ce que diw defu ko est que nangam defu ko sëriñ bi dafa mel istixaar est-ce que nangam est-ce nangam yàlla nee na ñaari bunt yi bu ngeen ko fattoon seytaane nee na bu ngeen ko fattoon aw ma accès ci yéen li tax ma ci yéen mooy di ngeen maa ubbil ñaari bunt yi kon nag bu leen ma lakkal wala talu muuni bu leen ma yedd te bu leen ma lakkal ñun ñëpp xam nañ fi ñu jëm kaay la ñu dem ma mat leen ñu dem fa ma adonoon wax yàlla ñu ci yàlla musal kon foofu la ñuy tëjee suñuy jataay diggante nit ak seytaan ci tënk xëy na am na jataay yi ñëw incha allah dinañ ko yaatal benn par benn doon def ak di seen mbokk oustaz Mouhamed Salih Diouf ñaan yàlla yàlla defar suñu mbir defar seeni mbir salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.